matwagi Juve bonia matwagi Juve bonia matwagi Juve bonia matwagi Labatin kukati ejoina jabanjopo finale fii tout d'abord dañuy féliciter jeunesse ñaaxaroise yëpp parce que c'est une fête de la jeunesse di féliciter parrain bi parce que c'est pas la première fois quand même muy def ay actes pour accompagner la jeunesse donc mu nekk loo xamante ne ñun euh, dañ ci euh, farlu dañu farlu ci jeunesse bi parce que jeunesse kat moom mooy yaakaaru euh, dëkk ëllëg Bassirou Ngom c'est l'ami des jeunes c'est l'ami de la jeunesse et loolu c'est une longue histoire yàgg na euh, contrat de confiance la signé ak jeunes yi boo jëlee 32 villages 32 villages yi nekk ci commune de Niakhar amu ci benn village boo xamante ne Maître Bassirou Ngom defu fa acte acte de bienfaisance à l'endroit des jeunes moo xam mu parrainé leen moo xam mu jëndal leen maillot moo xam mu wutal leen euh, des des de foot de sport Donc, euh, il a toujours été présent à, aux côtés des jeunes. Euh, cette année-ci, bi nga xamante ne jeune jeune ODCAV bi am euh, euh, zone bi am nañ problème pour euh, wut parrain ils se sont tournés vers lui parce que xam nañ ne à chaque fois que il est solicité il répond présent donc ci cadre boobu la accepté véritablement parrainer final bi mu am empleur bi aussi mu def ci ay moyens colossaux Euh, tout ça pour être fidèle n'est-ce pas à son credo mooy mooy servir la jeunesse looloo ko tax a jóg je crois moom la yàgg di def moom la def tey aussi te moom la nar a di def aussi moom nit la koo xamante ne il est tout au service des communauté et particulièrement de des jeunes. hommage bi ko jeunes yi euh, rendre aussi mérité na ko parce que dafa yàgg def ci ñoom. Et en retour, ci Daratimom, ce qu'il attend, c'est une jeunesse debout qui accepte de travailler pour le, pour le développement de, du terroir. jeunesse bi seen taxawaay seen taxawaay rafet na lii la ñuy xaar ci jeunesse une jeunesse debout une jeunesse responsable une jeunesse disciplinée une jeunesse au service de son terroir lii mooy rôle une jeunesse dans un terroir mooy organiser wu di def en sorte que li jeunes yu bëgg ñu mun ko defar ba jeunes yëpp ànd si yar si teggin si responsabilité si discipline parce que nag jeune moo dëkk parce que jeune moo am doole moo mën yenn pas-pas yi donc ñu amee jeunesse bu mel nii dañuy sant yàlla di leen ne nag ñun lu ñu gëm mooy kuy defar dëkk kiy defar dëkk moo am solo parce que suñu référence ñun ñëpp c'est le président de la république son excellence Macky Sall mooy suñu référence mooy suñu njiit mooy suñu kilifa mooy suñu lépp te ku nekk xam nga nu mu bëggee Sénégal nu mu bëggee Sénégal jëm kanam gis ngeen réalisation yi muy def kenn mu woon xalaat ne en peu de temps président mun na ko def donc mën noonu royukaay na nañu roy si moom roy si moom bëgg sa réew ñu si moom liggéey roy si moom euh, jom roy si moom détermination donc encore une fois toute la jeunesse de Niakhar toute la jeunesse du département de Fatick, la jeunesse du Sine. Encore une fois, merci beaucoup pour cette belle mobilisation qui est très saine, parce que c'est à travers ces mobilisations saines que nous allons développer notre terroir, c'est à travers ces mobilisations que nous allons développer notre pays. Il faut faire en sorte qu'il y ait la paix dans ce pays. Et qu'il y ait la paix, il faut qu'on conscientise les jeunes. Il faut qu'on soit avec les jeunes, leur montrer ce qui L'essentiel, c'est comment faire pour développer son terroir avec les personnes adultes, avec les personnes de bonne volonté. C'est ça aussi le rôle d'un jeune. Le rôle d'un jeune, ce n'est pas la violence. Ça, c'est l'arme des faibles. Les plus faibles utilisent la violence. Les plus faibles, les plus minables. Un jeune ne doit pas être comme ça. Un jeune doit être responsable. Un jeune doit bien se comporter pour être respecté dans sa société. Et je demande à, aux jeunes d'être aussi responsables d'être aussi poli, d'être aussi courtois envers tout le monde. Parce que c'est ça le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Merci beaucoup encore une fois.